66 kilos yi Sénégal nag mooy finalu suba moog Niger mais troisième ak quatrième place bi gis nga combat baa ngi noonu dem na gis nga ñu ngi leewaat dama jàppante nañu fi nag trois api jël la jàppante nañu fàq na ko gis nga nanguwul lii dafa am ah ñu ngi ñu ngi téyante mi ngi ko kor di ko puus ngi téyante ngi téyante Sénégal suba demi mooy mooy bëre final digganteem ak Niger te bii mooy septième édition boo xam ne ñoom ñaar ñoo koy finaalu mais mën naa ne lépp Sénégal ko jël 2008 Sénégal ñàkkoon na contre Nigéria mais boobu ba léegi nag li ñu fi tey moo ko jël kon moo porté drapeau bi war a nag téyewaat titre am fii ci arène nationale euh, gis nga ñi ngi doon ti téyante lii par individuel la 66 kilos yi ngi damante baaraam fii ci arène nationale tournoi CEDEAO xam nga ñu nga fàq na ko

waa sifflé waat jël na avertissement daw na fàq ko ngi téyante do jiga Burkina Faso ak Koulibaly Aziz bu Côte d'Ivoire fàq na ko gis nga atte nañu day jël avertissement moom tamit atte nañu jeex na jeex na jeex na bu kon dafa am blessure dafa am blessure dafa am blessure arbitre sifflé waat na ba léegi ñu ngi ci soixante-six kilos yi di premier combat mais combat individuel la to Gilbert Burkina Koulibaly Aziz Côte d'Ivoire weele na ko mai xale yi dañoo toj bëre bi dañoo tëj bëre bi mayewuñu dara waaw ku jël avertissement Koulibaly Aziz jël na jël na avertissement damante nañu baaraam ñoom ku ne benn ku ne na benn avertissement to Gilbert a ne ko dañoo tëj bëre bi kenn mayul sa morom dara noonu di ko bëtt mu contrer ko waa avertissement jëm na ko song su temps bi jeexee day ñàkk daw na jël ko wër na ko ndomba wër na ko ndomba 4 appuis daan na ko to Gilbert gagné Chérif Kamou Gana mooy ceinture rouge voie Sagou mooy euh, ceinture bleu fàq na ko waaw waaw waaw ndeysaan wañ na ko da wër ko ndomba daan na ko <laughs> Guinée Bissau daan na Guinée Bissau am na victoire ci kanam Gana ci 66 kilos yi Amadou bu Niger Manarazu Hissène bu Nigeria arbitre sifflé na demee nañu wet ñoom ñaar damante baaraam dafa xaw a uteeg suñ bërëb bi tuuti nag ndax ñi dañuy tëj bërëb bi duñ la may dara dañuy wàcc rek boo déclenché ñu jàpp daw na jël ko daw na jël ko dóor ci suuf Niger gagné na Niger gagné na Nigeria Alimuyu Amadou bu Niger daan na ci 66 kilos yi moom tamit ñu ngi leewaatoo damante baaraam fàq na ko Côte d'Ivoire ah Ivoirien bi daan na ko jëli bi rëy na kii daa mën a bëre kii ndaanaan la daa mën a bëre ñi ngi demante baaraam ñoom ñaar jàppante nañu wàññil ma xool ba xam nga fàq na ko kon baax na mat na ndeysaan fàq na ko mu rëpp a daan na ko daan na ko buru Nigéria bi daan na ko Assane bu Gambi ak Fadaïs Sierra na jël ko mu nooju ko daan na ko jël bi na Assane daan na ko waaw ma fecc jarta laaj Gambie ak Sénégal lañu Burkina Côte d'Ivoire tournoi CEDEAO fii ci arène nationale fàq na ko daw sañaxal ko ah ki dàq est daanuwul moom mi dàq moo daanu de Côte d'Ivoire moo victoire moom mi dàq moo daanu da ko dàq mu rëcc mu def quatre appui ah moo daanu on koy buddi buddi on koy buddi daw na wër ko ndomba quatre appui daan na ko dellu siwaat nañ ci 66 kilos yi Niger ak Nigeria Niger ceinture bleue Nigeria ceinture rouge damante baaraam xam nga lutte bi moom duñ la may dara fàq na ko di ko jéem a waaw waaw bloqué na ko daw na di ko suli dañoo mën a bëre de dañoo mën a bare waaw da koo xam sax soo ba déclenché day tëj bëre bi waaw fàq na ko gis nga ëñ na ko daw na di ko file daw na di ko xar dëgg na daw na wër ko ndomb a ah, jeex na Niger gagné na Nigeria ci 66 kilos yi Moussa Faye 66 kilos yi Moussa Faye nag sa moo na tournoi bi Sierra Leone Sénégal waaw nee ko bàyyil ngàdd yi Moussa Faye ceinture bleue Souleymane ceinture rouge Moussa Faye waa njëkkoon na ko waa da ko cabax te tere woon nañ ko ko Moussa Moussa Faye Souleymane waa jàppante bi lañuy ñuy bañ kor na ko Moussa Faye Souleymane fàq na ko mu rëpp Moussa Faye Souleymane xalab na ko mu rëpp delloosi na ko mbaar na ko Moussa Faye daan na ko waa lii ci jom la bokk waaw daan na siisu daanu na siisu nanguwul ma ngay jooy lii ci jom la bokk walaay dëgg la Sénégal ak Bénin a ah, Ngor ñaax jël na avertissement Ngor ñaax jël na avertissement ceinture bleue waaye moom daawul bëre lu yàgg góor ñaax jël na avertissement Sénégal ceinture bleue Bénin ceinture rouge wax na ko mu rëpp arbitre nee na ko def leen ndànk Ngor ñaax mënul def ndànk daa jël avertissement avant combat bu fi temps bi yemee day ñàkk kon foog mu bare beneen Sénégal Sénégal ceinture bleue beneen ceinture rouge ñu ngi ci combat waaye par équipe bi nag Sénégal mooy finalu ak mooy Niger bi mooy juróom-ñaari yoon bu ñu finalu ah waaw ngóor boo moyul ñàkk de boo jëlee troisième avertissement di nga ñàkk foog nga changer stratégie dëbb na ko sol ngóor dëbb na ko sol añ ko mu rasu takk na ko ngóor takk na ko wañ na ko mu bañ dellu ko si géew bi voilà waaw reporter de léeg-léeg ñu far waaye du mën a ñàkk nag <laughs> ndax li affaire u réew la ngóor dëbbaat na ko sol fàq na ko mu bañ mu koy dëbaat sol bi yoon nangootul sol mi puus ko mu génn puus ko mu génn ngóor puus ko mu génn wañ na ko daan na ko <laughs> ngóor dëbb na ko sol wañ ko mu dóor dënn bi li ma jaaxal reporter yi dañuy far mais c'est normal xam naa dañ ko téye ko bu leen yëngu concentré wu leen Kana Sénégal Gandia Fama Gandia Fama xaw ma ko bétanti la dëkk daal xam naa ko Gandia takk na ko de takk na ko mais ganaaye bi nanguwul mais Gandia takk na ko yëlëb na ko yëlëb na ko waaw yëlëb na ko xaaj ko wañ ko dóor ci suuf ceinture bleue Nigéria ceinture rouge catégorie 86 kilos yi nooju na ko mu bañ ëñ na ko daw na jël ko daw na jël ko daw ak moom daw na jël ko daanu daanu na mburu nigérien bi gagné na daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko waa Kandji Fama noonu Kandji Fama fu jom jëm fu ne day ànd ak ay supporteurs am même drapeau chef de la àndal. waa Ganji Fama ngi noonu Ganji Fama ngi noonu Bettenty la jógee Bettenty la waree fu mu jëm fu ne day ànd ak ay fan sam même drapeau chef bi amoon Kaolack. Ganji Fama ngi noonu cey Ganji Fama betenti la waree xale bu jar a bàyyi xel la waaw ma ngay saafanteeg waa këram yi Ganji Fama ngi noonu waaw waaw nee dama am doole Ganji nee na dama am doole wax nga dëgg doole doxul jàmm waaw ma ngay dem ngay dem defal lu la neex waaw gàncax gi noonu waaw man lii laa bëgg animation bi waaw waaw waaw lii laa bëgg waaw waaw lii moom waaw waaw gàncax faamaa ngi noonu waaw waaw làmb estor lu tuuti la ci mais culture bi dafa am solo waaw waaw waaw gi noonu waaw waaw dafa lu la neex. lu tuuti la ci. mais lii. waa jëla kilo bi ordinateur. ordinateur. Sénégal Ghana. waa Gadji Fama ngi noonu. dafa lu la neex ka ndaw. waaw waaw. ndeysaan. cey. ordinateur ca géew ba. Sénégal Ghana 100 kilos individuel. ordinateur jël na ko dóor ci suuf. ordinateur daan na ko waaw waaw ordinateur daan na ko Sénégal waaw waaw waaw gaaña ngay dem gaaña waaw waaw waaw waaw waaw dafa lu la neex peinture bleue damante nañu baaraam tegante nañ loxo ci bopp wéele ne ko mais nanguwul fiile na ko fiile na ko mu jiyorloog moom song ko añ na ko doog moom dër ci suuf waaw arobase na ko arobase waa ordinateur a ngi noonu <laughs> ndeysaan ordinateur Niger ceinture rouge Côte d'Ivoire ceinture bleue ci 100 kilos fàq na ko ah njool mi ndaanaan la de ëj na ko mu bañ fàq na ko delloosi na ko waaw ah, dañ leen di waat ci géew bi mbëru Côte d'Ivoire bi jël na avertissement kal na ko wax na ko Niger ceinture song na ko doog moom doog moom daw na wër ko daw na ko doog moom mbaar na ko a ah, daanu na Ivoirien bi jekkoon na mais moo dafa surux dafa surux Niger ak Sénégal xëy na coach yi def différence Boy Faye ak Kadri Boy Faye ak Kadri bañ na ko gisoo ni mu koy ko mu fay lonk na ko caxabal daw ak moom booy fay rasu rëcc kadri booy waa Mbomboote jiitu plus de cent plus de cent kilos Niger ak Sénégal weele na ko weele na ko danga ko waroon a bàyyi daw laxasu ndigili waaw doo ko jàpp Boy Faye Kadri wax ko mu rëbb na ko mu bloqué ko moo ngi koy jéem a génne Kadri ñu ngi téyante Niger ak Sénégal fàq na ko mu rëpp Ambroise nanguwul Ambroise nanguwul nee na day bind recours day def recours waaw waaw ak waaw loolu am na solo waaw loolu mooy gaynde demal ñu ngi sa ginnaaw waaw waaw Ganji Fama Oboli ak Oninga cey làmb nee naa espoir bi lu tuuti la ci bu arbitre bi déchiffré rek culture bi dafa am solo ak cosaan li waaw Ganji Fama ngi noonu Ganji Fama fu mu jëm fu ne day ànd ak ay supporteram même drapeau de l'état Kaolack mbooloo mi la àndal waaw Gandia Fama ngi noonu Gandia Fama ngi noonu Bettenty la jógee Bettenty la waree fu mu jëm fu ne day ànd ak ay de l'État bi amoon Kaolack Gandia Fama ngi noonu cey Gandia Fama Bettenty la waree xale bu jar xel la waaw ma ngay saafanteeg waa dëbb na ko dëbb na ko promier demi-finale ci 66 kilos yi Moussa Faye na ko sol Moussa Faye na ko sol moo koy jéem a sulli ëj na ko mais nanguwul sañaxal na ko moo waaw da ko koo dëj fàq na ko premier demi-finale 66 kilos Sénégal ceinture demi-finale Moussa Faye Moussa Faye daan na ko Moussa Faye en finale nee na dama am doole doole doxul jàmm Moussa Faye finalu ci poids léger yi déedéet nee na du ma dal ci ginnaawam maa ko man fuuf doole doxul jàmm cey Moussa Ghana ceinture rouge Bissau ceinture bleue 76 kilos na ko ëñ ko di ko kot mu rasu xar na ko ëñ ko di ko kot ma ngi koy xar wañ dóor ma ci suuf daan na ko Bissau en finale soixante seize Sénégal ak Niger Ngor ak Mansour Issa Ngor Niakh Mansour Issa Sénégal Niger 76 kilos Sénégal ceinture rouge Sénégal ceinture rouge Niger ceinture bleue Ngor Niakh ak Mansour Issa Ngor ñaax fiile na ko fàq fàq na ko jalgandaloog moom bal na ko mu bañ daw na di ko jéem a jël ngoor nanguwul bloqué na ko bëggoon na koo këf bëre kët la mais nanguwul fàq na ko mu bàyyi koog boppam Niger Sénégal deuxième demi-finale doona di ko sulli mbaar na ko fàq na ko mu bañ fàq na ko génne na ko jeex na jeex na waaw dañoo bañ dañu nii dañoo ànd génn Ngor Niakh Mansour Essa Niger catégorie 76 kilos ñu ngi téyante moo wane final suba bi dina metti Niger dañoo ñëw lànk doon na de ko jël mu rasu jéem na ko sentiré mais nanguwul Ngor Ñaax Mansour Essa baax na ko mu bàyyi ko boppam Gandia daan na ko Gandia Fama en final Gandia Fama en final 88 nee na damay nelaw gaaw leen tey Gandia Fama waaw lii xam ba day am rigueur dafa lu neex Gandia ah nan daanoon la. daw na jël ko delloo ko dóor ci suuf lan moo wax eh, aa ah, ah. Nigéria beneen ceinture rouge ordinateur Sénégal Capo nikola Bene ordinateur dëbb na ko sol añ na ko yëlëb ko delloo si ko daan ko doole doxul jàmm doole doxul jàmm dafa lu la neex ordinateur waa bëgg naa loolu mbër day rakkaaju loolu man maa ko bëgg mbër day rakkaaju waaw dafa lu la neex dafa lu la neex ordinateur dafa lu la neex mbër day rakkaaju waaw waaw dafa lu la neex mbër waaw waaw waaw waaw waaw waaw mbër day raa kaaju dafa lu la neex dafa lu la neex dafa lu la neex waaw loolu laa bëgg waaw waaw mbër day raa kaaju waaw ndeysaan cay làmb ndeysaan Assane Niger deuxième demi-finale ay bo asan daw na yooru Babacar capté ko Babacar dëbb na sol daw di ko jël mu rasu fàq ko Niger Gambie deuxième demi-finale ay bo asan Niger Babacar Mbodj Gambie fàq na ko mu bañ tag daw na yooru mu rasu fàq fii la ko delloo si ko dana war ko ndam ba mu bañ ma koy bay daan na ko daan na ko Babacar daan na ko Gambie en final puus na ko génn ko waaw ah, Adama Diouf Niger ak Nigeria Niger ak Nigeria ndeysaan Kadri Abdou ak Boltik Nigeria Nigeria ceinture bleue Niger ceinture rouge jeex na jeex na jeex na jeex na Kadri Abdou en final Niger mooy dem final par individuel waaw ndeysaan loolu moo fi xewoon ci tournoi CEDEAO Sénégal suba mooy finalu ak Niger li fi jotoo ko yëpp taataan nañ ko mais Sénégal ci wàllu individuel 60 kilo 66 kilo bi day finalu 76 kilo bi day finalu 100 kilo bi day finalu waaye plus de 100 120 kilo bi nag booy fay dafa ñàkk. mais suba day finaalu bu ko defee ñu xëccoowaat titre bi dañuy ñaan rek Sénégal jëlaat titre bi ñoo ko diggee woon te diggee bor la lu ci mënti xew danañ leen ko dégtal ci site bu mag boobu di Sénégal 7 dara du leen ci ëmp kon rendez-vous bi suba lay doon jërë ngeen jëf.